asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi nuyu ñi ñu fi nekkal ñëpp ci bi journaliste ak ay leader politique yi fi teew kàddu bi nag dama ko jël ci mouvement FDD di de la défense défense de la démocratie euh, ma bokk ko ak maam Biram Waaj ak euh, Serigne Saliou Guèye ak Babacar Mboub ak euh, maam nu mu tuddati Salma Ibrahima Fall ak Maymouna Bousso ñoom ñooñu lañ ko bokkal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. li ñu tax a jóg nag mouvement boobu bëri na ñuy wax sax mouvement journaliste la mais du mouvement boo xam ne journaliste yi rek la parce que journaliste yi rek moomu moomuñu mouvement boobu parce que man mii maa ngi ci biir te du ma journaliste ak ñoom Babacar bu bëri na nag ay journaliste yu ci nekk mais li tax ñu jóg rek mooy ñun ay nit lañ ñoo xam ne ñu ci ëpp xëy na xam nañ ñu ci micro yi ñuy wax mais réew bi dafa toll foo xam ne euh, kenn ku nekk da ngay fekkee da ngaa nekkoon ci ay bureau wala sa néeg wala sa place réew mi dafa toll foo xam ne ku nekk da ngay jóg fa nga nekkoon nga ñëw taxaw ci pénc mi ñu ànd xeex li ñuy xeex pour senegal mën a continuer di nekk fa nekkoon loolu nag moo tax FDD sosu donc ñun ñu ci nekk ñëpp loolu rek moo ñu yëkkati ñu ciy woo sénégalais yëpp samedi am nañ manifestation terrain Grand Yoff euh, à 15 heures mooy nekk commencement bi ñu ngi ciy invité euh, leader politique yëpp candidat yi ak euh, njiitu mouvement yi fi nekk yëpp ak journaliste yëpp parce que tey jii sax dañoo amoon conférence de presse. mais comme dañu yëg ne ñii dañuy def te yaakaar naa ne boole doole yi ci lañu war a toll mais kenn ku nekk warul beru fële di def sa yëfu bopp. nii nga xamee ne candidat yi dañu boole seen bopp euh, noonu la mouvement yëpp war a boole seen bopp ba ku woote ñëpp ñëw ànd ak yow pour li ngay def mën a réussir parce que li ñu soxla du ndamu benn nit du ndamu ñaari nit mais ndamul <coughs> réew mi lépp la. Euh, li nga xam ne dinaa ko si waxaat rek euh, mooy wax ak sénégalais yi parce que tey mën nañ woote minute manifestation kum neex nga toog mën nañ woote ville morte nga génn dem ne bokkuma ci waaye démb ak barki démb rek ku dem Guinée ville morte am na fa par force parce que nit ñi sécurité bu ñu génnee sax dem liggéey yi amatuñu ko boo demee di liggéey sax li ngay liggéey mënatul a tegu ci dara parce que amuñu li ñuy wax état comme nag ñun leader yi ñu yàlla jox ay visionnaire lañ xam nañ ne kat fii Macky Sall jëm ak réew mi nit dina fi bëgg a génn këram du ñemee génn nit dina fi bëgg a liggéey du mën a liggéey nit dina jënd conteneur indi ko fii ci port bi dootu ko gisati dara du ko ci fekk laataa loolu di am nag dañuy boole suñ doolee ñun senegale yi ànd xeex lii nga xam ne moom la Macky Sall di woote ci réew mi pour mu jóge fi li nga xam ne moom laay dolliwaat loolu laay wax sénégalais yi xeex bi nag yàlla def na ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais dafa am ñoo xam ne li ñu wax aqrabul awlaan ay leader yoo xam ne ñoom ñooy candidat yi muy dix-neuf personnes kenn ci ñoom mooy nekk président Sénégal incha allah ñooñu nag comme nangu nañoo boole suñu bopp seen bopp ñun militants yi nga xam ne dañu bokk ci parti yi ak ñi nga xam ne ay sympathisants lañ ak ku mën a doon. il faut ñu booloo ñun ci suñ bopp comme ni leader yi boole woo parce que tey benn leader rek bu génnoon rek day may doole Macky Sall bu ñu dajee fenn di woote manifestation wala di woote meeting ñu naan kii moo wax lii kii moo wax li sama leader ñii di yuuxu kii ñii di yuuxu kee kon leader yi ñi ngi defar mais militants yi ñu ngi yàq il faut ñu bàyyi xel loolu ku rusuta ñëw ànd ak sa leader waroo rus jox ko gëdd gëdd bi nga jox sa leader donc loolu laay wax leader ëpp ma leen xam-xam gënu ma leen a xam réew mi mais dinaa leen baaka dara mooy ngeen gën a boole seen bopp Macky Sall kum ci def visite biir kër lànkal kum ci woo public lànkal parce que li mu bëgg mooy dina def le tout pour pour tàqale leen loolu nag yéen a koy bañal seen bopp pour gën ñoo may doole ñun ñu topp seen ginnaaw parce que man euh, euh, dialogue am bii mu doon woote bari ki démb defe naa ne lu nekk lu gën a nekk yàpp Sénégal amul mooy nga am sa ñaari soxna problème am ci kër gi nga ne pour ñu régler problème bi dañuy dem jëli ex yëpp ñu ñëw bokk régler problème loolu la leen bëggoon a def ngeen xam ko lànk moom nag jaral na ko nag bëgg na réunion ba faral ko mu bàyyi soxnaam yi dem di réunion ex ya man nag boo réunion ex yi ba noppi boo ñëwee noo koy doxale ci biir kër gi laa xamoon li ci des mooy lii muy def lépp bu leen mës a dugal seen bopp ci ne i Sall day dem le 2 li muy wax naan mi ngi koy timit mi ngi koy wax ba muy wër réew mi naan damay def cinq ans du ma def sept ans est-ce que ba mu jotee def na ko lan la Macky Sall ma sa dig askanu Sénégal dalee ba jot ma respecté ko le 2 avril Macky Sall dafa bëgg a essayer xool ba xam la trois bu xëyee nan la dëkk bi mel su nooyee day continuer toog ci réew mi jaay doole nit ñi xam nga ne pardon benn baax bu demee ba naan daaka ji mooy tax mënumaa jàpp man euh, élection yi waa bëri ki démb ban président moo fekk yi daaka mu ne dagg leen daaka ji parce que corona dafay ñëw du Macky Sall kon bu demee bay taafantaloo daaka tey xam ngeen ne dafa am lu nekk ci boppam te waxu ko Macky Sall foo mën a fi gàmmu Tiwaawoon foo mu fi daaka foo mu fi màggal yi foo mu fi ngénte yi ba sax aaye fi nit ñi ñu suul seen i lo seen i mbokk ku am ku mën a def loolu aw askan nag soo bëggee organiser ay élection du la tëgg na bàyyi caaxaan yi

malheureusement président Macky Sall gàkkal na suñu image démocratie ba fu ne dañuy kekkantoo waaye li ci aussi suñu contentement mooy résistance bi nga xam ne sénégalais yi wane nañ ko ci bi mu attaqué seen démocratie loolu bariwul nga gis ko Afrique ndax fii ku fi mës a yëkkati violation de la constitution ba ci troisième mandat ba def lu la neex bari nag réew yoo xam ne yi dañ naan ah jaru ko waaye fii da koo jaral gor yëpp jaral ko démocrate yi jaral ko opposition jaral ko journaliste yi jaral ko intellectuel yi man nag li nga xam ne moom laa ci wax kàddu yi dama koy jëmale conseil constitutionnel conseil constitutionnel delloowaat ngeen président Macky Sall ci yoon ba mu wàccee yoon ndax kenn mësa gis ñu ne dans dix heures la élection la campagne électorale nga yeewu jël rajo bi ak télé bi ne fomm naa élection yi dem assemblée nationale ñu woteel la loi conseil constitutionnel jubalewaat ñu ak justice ci décision bi mu jël maanaam delloo si waat président Macky Sall ci yoon ne ko loi bi nga xam ne jëloon nga ko c'est loi loi anticonstitutionnelle demal nga organiser élection yi foofu nag vraiment ñu gis ci loo xam ne lii moo waral lii maanaam ñëpp ànd doon benn say pour que suñu élection yi nga xam ne sunu droit constitutionnel la président Macky Sall jël décision nee na day lool la waaye banaa noo gëm ne dem nga gis la ca avion bay dem d'abord ñaareel mooy wax dëgg yàlla bu fekkee ne yow bañ lay fal 2012 man ku mel ni man àndoon ak yow ak ñeneen ñu fi ne jàppale la président Abdoulaye Wade nangu defetam toog def passation de service xolle ci bët dénk la li mu lay dénk dem yow waroon ngaa def lu ni mel waroon ngaa delloo teraanga jooju peuple sénégalais bu fekkee ne da ngay dem le 2 avril it danga nga war a organiser élection yi avant ngay dem munoo ko organiser na conseil constitutionnel jël responsabilité organiser élection yi sénégalais